sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëriñ Modou Falilou Fall yëkkati kàddu cant yu ànd ki ngërëm ak i ñaan jëm ci njabootug mam Cheikh Ibrahima Fall rawati njabootug sëriñ Modou Falilou Fall talibé yi ndigal daa bàyyee waat ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides jaar ci jëwriñu mam Cheikh Ibrahima Fall babul mouridina sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda ngir nu war a delluwaat Mbacké Bawal ca kërug sëriñ Touba ajjuma fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2023 a toog rek baatu fekki nag sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng jëwriñ waat fekk ci da nga xam moo am di Modou Mbeng jëwriñu maam Cheikh Rahma Fall ndigal loolu nga xam yàlla ko ci kër maam Mor Jaara ci loxo ko kon ki aju nga ci kër addi yi nga xam ne joxe woon nañ ko itam ñu ci farluwaat koo xam ne kii nga sa lettre addi na nga ko laaj laajaale liggéey bi ci waaye am itam na ko ji indi na ñëpp maase dem Mbàkke Bawal ca kërug Sëriñ Tuubaa te ñu jox ko njabootu maam Cheikh fer ak ciment mbaa njëgam boo ko indee ñu defal la ko ca sëriñ Fallou Fall bala moo wopp murit ndigal daa ñëw tax mu woote waaju fa ñëw làq cër yu ñëppi naw ngir murit liggéeyal Seex Pamba dong nga koy may ndam Seex Rafal defoon ko yóbbal ba romb ay maasam ay cëleen murit xeer ak fer ciment karoog kon nga am pajuk aajo raw balaak musiba ak lor la qualité fait la différence. La